waaw surtout. loolu politique da ka yàq maanaam man su nekkee jaaru ci man ma tiitaroo ko mais fii. wala oustaz da nga naan. ni ñu jàppee ñoom politique. voilà moo ko yàq. mu ngoog ndax politique mënu ko yàq du noonu du noonu sax. parce que ma li ñuy loolu loolu il faut il faut. il faut xeet yooyu ñoom ñu utal ko tur. parce loolu du politique du façon boobu. man nee naa sax dafa jot sax ñu utal loolu tur. voilà nga xam te képp kuy def loolu ñu ne ko. yow lii ngay def waaye politique la xam nga des nga dégg nit wax du dëgg sax ñu ne ah day politique rek. il faut ñu dindi loolu. surtout ah, surtout maanaam nit war sax ñu ne daa politique. il faut ñu dindi loolu. waaw xanaa politicien la. moo tax il faut ñu ut beneen tour parce que politique ci sens am dëggantaan. àndul ak loolu. mais mais c'est que ñoom politique yi ci boppam ñoom ñoo ñoom ñooy ñoom ñoo yàq définition politique en tant que tel boo demee ba léegi nag wax dëgg yàlla daf ba fekkee accident ba jël ñëpp gas ba mu xóot suul am na ca ñoo xam ne dañ ko doon wax naan ko ñu ndeewuñu bu ñu suulaale mu suul ñëpp ba pare woo sapeur pompier xaar sapeur ñëw mu ne ko ah, suur naa ña fa deewoon am na ñu ca desoon nag doon wax naan dee nag de waaye xam nga ay waxi politicien rek. naa <laughs> ah, kon ma suul ñëpp suul ñi ñiy dund suul ñiy deewaale dafa am loo xam ne euh, sama papa daf ko wax léegi te oh. en fait loolu mooy quintessence gis nga nag boo bëggee dégg dëgg nag oustaz li nga wax loolooy dëgg mooy iñaan ak soxor moo nu daal hmm. c'est-à-dire ñun dañoo iñaan ba iñaan suñu bopp iñaane suñu bopp boobu moo ñu yóbbee ñu jël suñu économie dénk ko ay étranger dem nañu ba ñi nga xamante ne maanaam sax waruñu yor yenn yi ci réew mi ñoo ko fi yor sa à dire réew mi fii booy wax français yi yaa ngi wax libanais yi. yaa ngi wax indien yi yaa ngi wax chinois yi. yaa ngi wax sax guinéen yi. sénégalais yorul dara. sénégalais yorul dara. ca yokk ci nag képp ku am xam-xam dañ koy daf lay déranger képp kuy dox ci gëstu fu dëgg féete itam da nga leen di déranger mm-hmm. nañu continuer nag ci système moo tax gis nga bu ñuy wax changement de système mm. bu dee nit ñi dañoo yaakaar ne ci politique rek leenu ko tënk mooy ne ko réew mi ñun desee nañu amub xam-xam dafa am ay filières yoo xamante ne loolu mooy développer am dëkk te am dëkk tamit xam-xam moo ko yor mm. yow boo amul xam-xam war ngaa mën a accompagner wu ci ñoo xamante ne am nañu xam-xam gëstu nañu ci mbir moomu ci loolu lañu xam nga jox leen ci loolu ñu ciy liggéey exiger leen nag ay résultats. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. mais oui et ces résultats là on se ñu exiger c'est-à-dire que yow nit mënuñu yëkkati xaalis jox la jox ab société na la gérer yow liggéeyoo tous ñebe muy but buti yow yaa ngi développé wu naam sa biir di fukki nga yaakaar ne lii ngay liggéey nii wala sa biir bu rëy bi ngay am ñu koy wooy biiru patron yaa ngi lekk luy res fekk yow riibaa rek ngay dundee mhm. ak xol bu tàngu askan wi saa su nekk bu wal jàllo dee wax nga ne ko nañ ko dëj waaw alalu réew mi ku ci koy lekk rek mu feeñ ci yow mais na muy feeñee ci yow ëpp na te kaay ma wax la am na ci ñu bari ñoo xamante ne ah. seen mujj seen mujj hmm. Pape Ousmane hmm. Alpha Diallo ak sama papa billaahi wallahi tallaahi yàlla bu nu ko yàlla defal ci àddina te jamono jii nag kaay ma wax la déegi léegi daa précoce day betti à tout moment mën naa fëgg sa bunt waa kon mm. jotul nag ñun ñu xoolaat suñu bopp bu baax ci ni ñuy doxee ni ñuy dundee c'est-à-dire que yow ñun dans ce pays là il n'y a absolument rien boo xamante ne mën nañu wax ne sénégalais ñoo ko téye ci seen loxo ni tënk ko lu dul yàqante c'est-à-dire loolu nag c'est de la tête euh, jusqu'à la queue mm-hmm. laisse tomber quoi lu dul c'est-à-dire développer li nga xamante ne moom mooy lu culte de la médiocrité boo amee xam-xam sax ci réew mi kenn du la déglu mm-hmm. les gens n'ont même pas le temps ñu toog di defu gëstu ci loo xamante ne mooy jëmale réew mi kanam Sénégalais du seetaan luy defar xelam waaw léegi nag ñu bëgg a dëkk nag <laughs> xoolal TikTok bi rek ah booy <laughs> kii di fecc kii di bëre kii di way mais loolu développé wul am réew. xam nga am na ko doon raconté benn anecdote mhm. mu ne xaw ma chef d'état africain danoo mën mu danoo mës sa daje. mu ne yeneen chaîne boo jàpp ci Afrique rek da ngay gis ñooñee dañuy def ay débat di waxtaanee ci wàllum politique. di mhm. waxtaanee ci wàllu agriculture di waxtaanee wàllu santé mu ne waaye boo jàppee Sénégal mu ne fecc rek ngay dégg ak mbalax mi. Mhm. mais waaw Wade moo ko doon wax. mu bi mu demee Suisse sa dëkk daa neex lool mu ne ko lu tax mu ne parce que dañuy fecc rek quoi. ah waaw dëkk boo xam ne dañuy. waaw dëkk boo xam ne ñoo ëpp problème quoi xanaa amuñu problème. le niveau de vie du Sénégal est excessivement cher ça on n'a même pas besoin vraiment d'aller loin pour voir que nous chez on ne vit pas. gis nga boo demee Abidjan bii wallahi azim da ngay naw seen président xaw ma lu nu xeexoon waaye jar na ko. sincèrement seen ay tali baax na. bu tawee léegi balaa une heure de temps mu wow koŋ ndox mi am fu mu jaar amul fu muy taa di tag ñuy defari BRT di naq nit ñi bu tawee nit ñi continuer di xuus problème yi ñu naan réglé yaa 12 ans moom la ñuy réglé ba tey boo demee Abidjan gii ci sama dëkk bi laa la wax boo amee 300 francs sax ab boolu aceke boo xamante ne danga koy lekk muy garba bu saf sap sa biir fees del te doo ci dépensé xaalis. am bu nawet ñëwee gis nga gis yooyu. ci li ñu am xaalis koppar la. ñoo ñaan nag xam nga nu def. waa ñii nag ñoo soxor nag gis nga bu ONAS ONAS di def euh, ay activité pré hivernale. waaw mooy fu fatt mu fattam. mu fattam ni ko dañuy bàyyi ba ONAS def liggéeyam ba pare. ñu nga jëlee say saak duy ko suuf ba mu fees ñëwaat ba ci récolte dugal ko ba mu fees pour ndox bi bu ñëwee taxaw gis nga bu jugee ñu diw ku yor pompe bi fii. location bu koppar gis nga dara gënul nekk ar rek loolu ñuy woowee plan plan plan plan décennal non ay waaye ah kii nu mu tudd orsec orsec plan orsec plan orsec <laughs> waaw mm-hmm. man daal li ma leen mën a jox ci li ma retenir ah, balaa ñuy dem feneen mm-hmm. kon dese nañu beneen tëb waaw <laughs> Ousmane dese nañu beneen tëb ñu ngi dem vers benn changement. Mhm. mais après. jàpp mhm. naa ni dina am mécontent yuy galgalaat kon des nañu beneen xeex alfa ci li ma jàpp. Mhm. kon yëf yi seddagul. maanaam li ñu li ñuy yóbbu ci li ñu bëgg. beneen beneen. beneen combat la. te nag li ciy metti mooy say mbokk boppaa la koy def léegi. say mbokki bopp. waaw waaw imaam li ñuy wax ni dama bëgg nga firi ko oustaz. maanaam xam nga dañu ne buñ tànnee ba pare. Euh, dañu la ne tooñu ñu mbokk moo gën a garaaw sax ñu jam la xeej parce que doo mën dara ci ñoom mhm. sa mbokk tooñ la mhm. ñuy tàngal soxoo di la xeex moo gën a métti ñu jam la xeej parce que bu ñu jamee xeej di nga ko mën a rocc dem faju ji xanaa maanaam tey bu ñu tubaab bi jamoon xeej bañ bëgg ko buddi pour ñu tane mbokk yi ñooy ñëwaat ne du fi tanee mooy mécontent yi changement bi arrangé wul mm. ñooy nañ leen bàyyi xel bu baax mm. mooy lobby ngay wax moo xam businessman la moo xam marabu moo xam moo xam moo xam kon loolu nañ ko bàyyi xel parce que dafa am ñoo xam ne mën nañu sumbaxloo waaye changement neexu leen. déedéet seen intérêt dafa commencé menacé wu ñooy du ñu bàyyi yëf yi dem. Ah, euh, ndax dina fekk ñi nga xam ne bi ñu gisee ni riir rek ñuy daw. way wane ne maa nga ca. mu nga ca ah neewuñu ca. non non non <laughs> déedéet da gis dafa am ñoo xam ne dañ ciy dawale bokkuñu mën nañu def sa beneen coup d'état après. ñoom lañ tuddee ci arab sàcc katu révolution ah. dal na Algérie dañu bàyyi gars yi toog ba mu ñor am ñu dugal ci biir tigi sàcc sàcc révolution bi mhm. loolu nag am na ñoo xam ne boo nekk ci biir sax doo leen déglu parce que li ñu lay conseil ci kàmb lañu lay jëmalaat. waaw dëgg la dañu ñu lay wan lu baax mais dañu bëgg nga daanu pour nit ñi ree la. mooy xeetu ceeli yi nga xam te ne fee la ñuy taxaw gis mbir mi. jeex na ñii ne ci mais dañuy xam moment bi rek ñoo këf ko dem. mu ngoog léegi lay ñëw comme conseil alpha mais dañu bëgg boo utiliser daanu ci kàmb. moo tax il faut ñu jël matuwaay parce que gis nga révolution dafa jar a ñax. Euh. nga nga li tax ngay mhm. bi ma génnee waxi Sonacos. baal ma dafa am benn kilifa bu mag buy jaay dëwlin. Mhm. mu woo ma pour ma waxal ko dara mu fay ma. mais li ma doon wax loo. Mhm. dama nekk ana preuve yi nanguwuma ko jox mu ne ma waxal noonu ma ne koy wax naa da ngaa dof. <laughs> xanaa a dee kay. <laughs> maanaam daf ma doon. wax loo ma jël benn dëwlin ne dëwlin bii baaxul. Mhm. voilà pour moom ndekete moom dafa yor usine dëwlin pour que dëwlin boobu ñu génn ko ci marché bi mu dugal dëwlin. da lay sacrifier loolu laa lay wax voilà da lay sacrifier pour mu exister. voilà man yenn conseil doo ko dégg. moo tax ba ma génnee ci bureau laa pare ca moom. yaay jaama maanaam dëkk boo xamante ne ñëpp dañuy def politique sax parce que dëkk boobu doxul. doxul de baaxul. politiciens yi ëpp ñeneen. Euh, euh, waaw problème la ba pare bi. ah doy na waar de. <laughs> la de ñëppay seet di frigé ñëppay seet di frigé. Euh, papa yàlla yàlla guddal sa fan. <laughs> walaay dëgg la. Ah. Euh, ah politicien ëpp nit ñi sëriñ si ëpp taalibe yi. dëkk boobu. du dox. wuy Pape Ousmane. ci fi ñu gis ci élection yi. tey la campagne bi jeex. waaw ñu jëm ci tànn te yëpp ñu waxtaanee di ko situé ci ay responsabilité ndax daf ci yow dafa aju ci njiit bi. waaw. Ah. waaw parce que xam nga njiit mooy symbole développement wu réew. Mm-hmm. Euh, damay faral di wax ne euh, njiit yi yàlla defu leen ko par hasard. Mm-hmm. scénario boo gis nag maanaam àdduna yëpp scénario la Alpha. Mhm. lii xew ñëpp scénario la. Mhm. yàlla day xool day yër lu xool lu ko nekk bu ko leeree ne baaxoo mu jox la scénario bu salte bi nga joué ko parce que day fekk sonn ni ci yow pour nga baax. Mhm. mu ne xaaral yow mérité woo joué loo scénario bu baax moo ngay gis ñi dëng ci biir. ci lii dox nii bu yërndoo sa xool gis ne set na nag mu joué loo scénario bu rafet mooy ñi bëgg a defar. kon nag njiit loolu di ñëw ci ñun suba soxlawuñu. ay diplôme yu bëri soxlawuñu ay fii la jaar mhm. soxlawuñu nangam xam lu soxla mooy njub ak bëgg sa réew mhm. buñ ko amee rek mhm. volonté boobu rek yàlla mën na cee teg loxo voilà te nag lan la koy sampee mooy justice te justice buñ ko jàppee mbirum rek yóbbu ca yoon di àtte deux ans cinq ans nangu nañ këram justice sociale d'abord justice sociale ku nekk di jot li nga war a jot ci li nga war a jot mm-hmm. loolu mooy justice sociale sinon mooy dindi lan eenante bi agression bi iñaanante bi parce que ku nekk boo jotee ci nag li sa wàlla hmm. doo iñaane kenn wàllam ah, mais bu ñu rendee nag bi ci penc mi séddoo bàyyi la da ngay wuti nar booy nangu ji ci koñ koñ bi di nga hmm. gaañ borom nangu ko wala nga ne nañ ci séddu kon mu ngi jeex mais ñu ngi ci virage bi li hmm. liñ ci dénk mooy ñu ànd ak vigilance dal teey defe ko ni ñu ko waxee xool kan la ñu tànn képp koo xam ne gis nga ne tey réew mi dafa war a changé te ñëpp war a jàpp ne loolu la nga dem damay wax ouvertement nga sànni joomaa yi fay. ndax ndax jàpp nga ne lu dal sa xel la. ak ñooñu macha allah ah. xam nga ci turam laa amee nekkee ko optimiste. turam Bachir. Bachir boo ko waxee ne Bachir ak Siin su tooy comme ca Daara dinañ daan jàng. wala Bachir ak Soadun lépp daf ñuy jox ñu nekk ñu optimiste Bachir mooy ku andi nouvelle bu neex. Mm-hmm. Bachir andil nañu nouvelle bu neex. basiir mooy ko am vision bu sori turwaa ji hmm. secret moo ci laxasu lu tax ñu ne ko ciix balaa Sonko boobu la doon waajali lii du hasard hmm. te nañu xool fi ñu jëm te mbirum Sonko damay faral di waxtaan ak benn waay mu ne ma Sonko sansam mooy récompense yàlla lay amee parce que mel ni bëggul nguur gi parce que day fale rek hmm. seetlu ngeen Sonko ah, day jékki ne man est-ce que man bëgg naa jiite Sénégal sax waaw mos <laughs> na ko wax man damay xool sama bopp man man mii est bëgg naa jiite Sénégal wala mu ne man su ma nekkee su ma ko yoree du baax yàlla bu ma ko yàlla jox kooku day désintéressé wu xam nga mais ko lan mooy forum fale léegi mais yàlla da koy récompenser après daa génn fal yi hmm. waaye maire yi dañoo deewoon mu gé waay waay dañ ko nan dañ ko nangu rek nit ki da nga koy nangul baaxam moo génn fal maire yi. <laughs> sëñ bi jaar Ahmed Aïdara da koy reconnaître bés mu nekk. moo tax mu neex ma ci. maa ngi koy nuyuwaale sax. waaw day wax ci dëgg dëgg nag. Mhm. malgré Sonko sama xaritu grand frère la. mais bu dul woon moom mu ñaaw. kooku dafa reconnaissant. Mhm. mu génnaat fal député yi. donte bokkutoon. voilà gars yi trahir ko mu génnaat nag nam ñu faral benn président muy joomaay bu pare yàlla neexal ko. lu mu koy neexalee. bu soobee yàlla. Mhm. Sonko bu bu paree loo loo waxati ci Sonko bokk ci du saf suukar du saf xorom. ndax tàmbaliwul. loolu tàmbaliwul waaw maanaam maanaam récompense bi ca lay ñëw. Mhm. maanaam boo demee bi ci famille lu xew ñu ne xaar leen ko mu ñëw. xaar leen ko mu ñëw. Sonko loolu lay doon Sénégal. bu leen def te ñëwul de wala déglu leen ko mu wax leen balaa ngeen di commencé. Badou mooy nekk Messi Lionel Messi. loolu moom nañ koy lijjantee ci réew moo xam tànn nañ président ba pare. waaw parce que réew président bi yoru ko kese dafa laaj xalaat. Mhm. liñ bàyyi gëm la dafa yaakaar ne yëf yëpp ci boppu Diomaye lay. déedéet lu tax ñuy am gouvernement.